Noël Dieng am lu ko métti ci melokaanu Kaolack moom moo jàkkaarloo woon ak i militant naam ci nguur gi la bokk moom na lieutenant Diène ba Sarr bi di xam na ne Kaolack amul dara day joxoñ baraamu tuuma responsable yu mag yu dëkk Kaolack te nekk ci nguur gi. Kaolack amul lieu de divertissement. amul cadre de vie bu baax. Kaolack suñu usine tëj na. Kaolack amul dara. barki dem ah bi di woo Amadou Ba di jóge primature bi mu nekk dem daje ak askan wi ñu waxtaan ak ñoom su bëggee gagné présidentielle bi ñu jëm boo wàccul ci terrain bi yow am monsieur le ministre wàcc wax ak responsable yi am base wàcc dugg sol sa kaki sol sa jiin porte mais toog primature di jël ay femmes jël ay góor jël ay société ay mbootaay jël ay nangam 10 millions 3 millions 4 millions billaahi lasi laa ilaaha huwa fu ñu ndawu Diène Farba Sarr bi di xamal ne Amadou Ba su waxut ak kilifam bi di Diène Farba Sarr bu yaakaar ci moom ak yi farandoom ñu jàppal ko tànk ci présidentielle bi ñu jëm maa ngi wàcc yonti bi boo ma seetsiwul duma ñëw boo gisul Diène Farba ba Ousmane Noël du ma ñëw ak fu mu yem neex te maa nga la ñu waxal yéen ñi gëm Kaolack waa yëpp maa ngi la ñu waxal mbajib mbajib kanam borom moo koy fayul boppam. ci meeting bi mu doon amal nag mu jeexalee ko financement yu mu jox jigéen ñi ak ndaw ñi. waaye tam daloo benn arrêt mu may ko dawalkatu Jakarta yi nekk ci quartier Casenave bi ci kaw.